هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا sadaqallahul aziim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaaraat di leen balu àq bu baax di leen baal àq di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp ñu ñëwaat ak yéen seen tafsirul quran comme niñ koy defee bis bu nekk tey nag xam ngeen ne mooy suñu fukkeelu fan ci weeru koor gi kon fukki fan yu njëkk yi jeex na wala tey lay jeex ci jàmm incha allah li nga xam ne moom la ci yàlla dig jaamam yu baax yi nga xam ne dañuy woor yàlla nañ ko ci yàlla defal ndax xam ngeen ne wooru koor weeru koor fukki fan yu njëkk yi yërmande la kon yërmande googu yàlla nañu ko yàlla defal may ñu ñu eggale ñaar fukki fan yi nga xam ne moom moo ñu dese ci koor gi xam ngeen ne ñu ngi woon ak yéen ci suratu Nuux démb kon moom la ñuy eggale tey incha allah ñu ngi woon fi yàlla di waxee dañ koy jéggalu ndax suñ ko jéggaloo dina wàcc asamaan si dina wàccee taw ci asamaan si may ñu doom may ñu alal may ñu àjjana may ñu ay tool may ñu ay dex kon dañoo war a nekk ñoo xam ne lan moo tax du ñu yaakaar ca yàlla ak wegeel li ñu waroon a wegee yàlla lan moo tax wegee wuñ ko noonu lan moo tax yaakaare wuñ ko noonu yàlla mu ne maalakum laa tarjuuna lillaahi waqaaran lan moo leen dal ba de di ngeen weg yàlla di ngeen ko waroon a wegee waxad xalaxakum atwaaran te yàlla moo leen bind ngeen nekk maas par maas yàlla subhanahu wa taala bind leen ngeen nekk étape par étape ci seen biir yaay kon lu tax wegu leen yàlla subhanahu wa taala xam ngeen yàlla bu bindee doomu aadama da koy bind tawru ci kaw tawru maanaam day def nit ki mu nekk toq mànni yu ba mu yàgg mu nekk mudura ba mu yàgg mu nekk alaqa ba mu yàgg mu ne fa kasaw na la alaqata azaman mu jël yax yàpp bi muur ci yax yàlla mu ne noonu laa leen bindee xanaa gisu leen ginnaaw kéemtaan gi ma bindee doomu aadama alam taraw xanaa gisu leen kayfa xalaqa allahu sabaa samawaatin tibaaqan nan la yàlla bindee juróom-ñaari asamaan ñu nekk loo xam dañoo tegaloo wa jaala alqamara fiihinna nuuran wa jaala shamsa siraajan yàlla jël weer wi def ko ci kaw asamaan mu nekk leer di leeralaate waaye tamit mu jël jant bi def ko làmp bu leer nañ yàlla continué di wax ba tey mu ne wallahu ambatakum min al ardi nabatan yàlla moo leen génnee ci suuf si yéen doomu aadama yi xam ngeen ki nga xam ne mooy suñu maam di aadama alayhi salaam yàlla mi ngi ko meññee wala mi ngi génnee ci biir suuf moom aadama fa la ko yàlla génnee ay doomam nag mu daal leen di jël ñuy juddoonte ñoom ci seen biir waaye tamit di lekk li nga xam ne mooy bàyyeekoo ci biir suuf moo tax yàlla mu ne wallaahu moom yàlla day ambatakum moo leen saxal yéen doomu aadama yi minal ardi si bàyyikoo ci suuf si nabaatan ay gàncax yéen seen cosaan suuf la ba pare mu jëlaat suuf def si gàncax pour ngeen mun see dund yéen doomu aadama yi mu ne gis nga te suuf soosu summa yuiidukum fiha wa yuxrijukum ixraajan suuf soosu si lañ leen di delloo ndax xam nga doomu aadama matière am matière première am suuf la su deewee tamit ci suuf lañ koy delloo gas ba mu xóot jël suuf tëral ci jël suuf nekk njeganaayam nekk lalam nekk càngaayam nekk léppam kon mu ne si suuf soosu summa yuiidukum fiha fa lañ leen di delloo wa yuxrijukum ixraajan te ci suuf soosu lañ leen di génnewaate xam nga ne ëllëg bu ñuy dekki yowmal xiyaam kenn ku nekk ci sa bàmmeel ngay dekkee ñu daal di daw génn yàlla wal malaaka bi wal bëft bi ñépp génnee ci suuf soosu mu ne wallaahu jaala lakumul arda bisaatan yàlla continue di wax xéewal yi mu defal doomu aadama yi mu ne xolal man yàlla maa leen defal suuf si mu nekk basaŋ ñeel leen tàllalu ngeen mën cee def lu leen neex mën cee tabax mën cee daw man cee def lépp lu leen neex rek suuf si daal di leen di nangul loo bëgg a def ci suuf rek danga ko ciy def li tasluku minha subulan fijaajan ngir ngeen mën cee def ay yoon yoo xam ne yu jub lay doon suuf si lu la neex nga ciy def fàkk def say tool def say kër def lépp loo xamante ne rek soof na la ci suuf soosu yàlla mu ne nuux yàlla yàlla mu ne nuux mu ne yàlla li lépp wax naa ko sama xeet qaala nuuxun rabbi innahum asaw nii wattabau man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu illaa xasaaran gis nga yàlla li nga ma yónni li nga ma wax loolu lépp wax naa leen ko waaye ñoom day innahum qaala wax na nuuxun nuux rabbi yow sama boroom innahum asaw nii ñoom dañ maa mooy nanguwuñ maa dégg nanguwuñ maa dégg déggal nanguwuñoo topp li may woote ndeysaan wattabau nag ñu daal di topp bu ñu yemoon foofu sax mu neex waaye wattabau ñu topp man lam yazidhu maaluhu ko ki nga xamante ne nii alalam ak doo doomam dolliwuñ ko loolu ak pertaange ñu topp koo xamante ne nii alalam ak doomam ak yëpp du ko dolli lu dul pertaange ñoom daal borom alal yi lañ topp borom doom yi bari yi lañ topp yooyu daal lañu topp ñoom faale wuñ ma di kii daal lañu faale doom ak alal loolu rek lañu faale mu ne wa makaru makaran kubaaran mu ne ba pare nag ñu may pexeel nag di fexe bu nekk ñu koy def waaye nag wa qaalu laa tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwaan wala yaxuusa wa yaxuuqa wa nasran ñuy fexe di réeñoo di ma di ma di ma di ma di ma jëw di wax si man loo xam ni ba pare nag naan bu leen bàyyi mukk seen yàlla yi ngeen di jaamu borom alal yi naan leen bu leen bàyyi seen alal seen yàlla yi ngeen di jaamu ndax ya jàll yàlla yii kat mooy li leen di jariñ te xam ngeen ne yàlla yooyu mënu leen a jariñ mënu leen a lor ndax ay yàlla la yoo xam ni ñoo ko doon defaral seen bopp wala muy ay nit ñu baax ñoo xam ne dañu leen daan jaamu ñoo xam ne sax nekkatuñ fa waaye ñu topp continuer def leen ay yàlla ñu daan ni laa waqaalu ñu ne laa tasaru na ngan la waaye bu leen bàyyi alihatakum seen yàlla yi ngeen di jaamu wala tasaru na bu leen bàyyi waddaw wadd nee nañ tur la woon ci ay jaamukat ay xërëm yoo xam ne ñoo ko daan defar wala ay nit yoo xam ne ñoom dañu fee nekkoon ba jugatuñ fi ñu leen di jaamu wala ay xërëm wala suwaan wala suwaan moom it si xeet googu la wala yaxuusa yaxuusa kan tamit si ñooñ la bokk wa yaxuuqa yaxuuqa tamit si ñooñ la bokkoon wa nasran te ñii kat yàlla nee na wa qad adallu kasiran wala tazid zalimina illa dalalan ñii ñuy jaamu ni di leen topp ñoom day defuñu foo woon sax lu baax dañ daan réeral doomu aadama yi rek waxat adallu te ñoom sànkoon nañ kasiran lu bari nuux daan ni yàlla wala tasidi zalimina ngalawaay yow borom bi bul dolli réerkat yi illaa dalalan dudul ak réer ñi daal comme que dootuñu sànk tooñkat yi ñoom dañ lay tooñ duñ la jaamu dañ lay mooy bu leen dolli lu dul ak sànkute bàyyi leen rek ñuy continuer réer seen réer ndax dootuñu gëm yàlla yàlla mu ne mimma xatiatihim uxriqu fa udxilu naaran falam yajidu lahum min dunillahi ansaaran yàlla mu ne ndax sababu seen bàkkaar yi ñu defoon bañ a jaamu yàlla bañ a topp yenent yàlla noox mu ne uxriqu looloo tax ñu labal leen ci géej ga sababu li ñu bañoon a jaamu moo tax ñu labal leen ci géej ga fa udxilu naaran ñu dugal leen safara te kat safara sa ba ñu leen fa dugalee falam yajidu lahum min dunillahi ansaaran amuñu kenn ku dul yàlla ku leen mën a génn ci safara soosu kon ñi ñu daan jaamu anañu ñi ñu daan topp anañu duñ leen jariñ dara min dunillahi ansaaran wa qaala nuuxun nuux nag ba xol bi jeexee nag mu woote ba sonn kenn topp ko xolal lu mat ay juróom junniy at nga koy woo saw xeet kenn topp la mu mer nag ndeysaan daan ni wa qaala nuuxun rabbi laa tazar ala al ard min al kaafirina dayyaaran mu ne ay yow sama boroom bul bàyyi ci kaw suuf yéeféer yi bu ci bàyyi kenn koo xam ne mi ngi dëkkee ci suuf si dayyaar mooy képp koo xam ne rek yaa ngi am kër ci suuf si di fi dëkk mu ne bu la ko fi bàyyi ñëpp maasaaleel ñëpp rek nga daal leen di nga daal nga daal leen di rey ndaxte ñoom kat ñii dootuñu gëm te xam nga Nuux demoon na ba nga xamante ne nii ba mu naagoo ba mu sonnee yàlla def ni ko kat dangay continuer di woote de waaye ñi la gëm kese ñoo lay gëm keneen du la gëm yàlla nag subhaanahu wa taala nag ba mu sonnee nag moom Nuux mu ne nag kon yàlla nag léegi ñi jaratul ñuy def dara ci kaw suuf alag leen si la yàlla nag daal di nangu ñaanam googu daal di leen di alag ca ndox ma mu ne ko ndax innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yaliddu illa fajiran kafaran boo leen fi bàyyee tamit reyoo leen mbugaloo leen ñoom day dañuy gën a réeral sa jaam ñi rek ñi nga xam ne ñoo gëm a kus néew sax mën nañ leen a réeral te kat duñu jur lu ay kàccoor ak ay yéefar rek ndax yéefar moom yéefar rek lay jur kàccoor kàccoor rek lay jur comme ban nañoo gëm bañ bañ nañoo gëm yàlla même boo leen fi bàyyee tamit dañuy continuer rek di wedd kon rey leen rek ñoom ñëpp ñu dee yàlla daal di daal di nag nuux nag daal di commencé nag daal di ñaan borom bi daal di rabbi xfir lii wali walidayya wali man daxala bayti muminan walil muminin wal muminat wala tazidi zalimina illa tabaran yàlla nuux daal di ñaan yàlla mu ne yàlla yàlla nag ma jéggal jéggal samay waajur ak képp koo xam ne dugg nga sama kër gëm yàlla képp koo xamante ne nii gëm na yàlla rek na nga ko sama waa kër la bokk nga tamit jéggal jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi jéggalal ñëpp waaye nag yéeféer yi tooñkat yi nga xam ne duñu mus a gëm yàlla duñu mus a gëm bu leen dolli lu alkange ak pertaange ba keroog yowmal xiyaam bi ñëw mbokk jullit yi ñaan gi nuux ñaan muy ñaan gu am solo yàlla nañu bokk ñun ñëpp ci ñaan nuux googu ndax yaakaar naa ne képp kuy julli rek wala bu góor ak bu jigéen bokk nga ci wala dugg nga ci ñaan bi waaye tamit ñuy wax ne yàlla ñun moom dañuy wax ne yàlla tamit yàlla na gindi instant yi ñi nga xam ne dañoo nekk ci ak réer lii mooy soratu nuux yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp wax dëgg yàlla saar bu daw yaram la ndax di woote ay junniy at te ñi la topp matuñu sax téeméeri nit daw na yaram torop waaye nag yàlla noonu la ko dogalee woon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla may ñu fi ñu fekki suba ak jàmm ak salaam ba mun a eggale suñu tafsir niñ ko commencé tey nag suñu tafsir bi ñu ngi koy may ki nga xamante ni moom mooy Aminata madame Diop Aminata Seck nga xam ne moo ñu jaar fii moo ñu solal yére bii nga xamante ni moom la ñu sol tey ci tafsir bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ko jàmm ak Seyda Mariam ak suñu yaay Ndey Asu Caam ak mboolem koo xam ne rek fameem la ak askanam ñoom ñëpp lañu may tafsir bii tey di ñaan yàlla defal ñu dégg topp ba subaak jàmm insha allah ci beneen numéro aqulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu